Bok bu neex sha allah ko insha allah Rabbi. jam ak salam ñew pour ñew gagner len dem ñibbi waaw. tey ñu indi do ñew jam ak do ñew tay ñun fair play jam ak salam football gagné ñibbi ni nga daan defee ak ñom rek ñom xam nañ ñu moom. co loolu dugal ay nit masla ah. bi bu xex sun biir bu ñu sun mas ha manam bu bi jexé nak bu ñu gagné leen lu ñu bëgg dem nañ ko dem waaw. loolu lañ wax da dañuy gagner sax ñibbi léegi léegi du yàgg dara ñu gagné leen ñibbi. tey li ñu yëngal lu bees tàq stade bi dañ ko bëgg a xar tey stade bi dañ ko a xar ñun barki taala aysa ñëw na saa saa yu ñëwee Albouri yi yëngatoo aysa ñu lay suivre ci kanam maanaam si lii du match yi junior ak cadet ñun ñooy duñ seen morom duñ seen naw la dañuy amical lii du match dañuy amical ak ñoom ñibbi waaw sa waay dañuy amical dañuy amical ak ñoom rek ñibbi avion du Mbege layka layka layka waa di leen wax waa Kolda ñoo fi ñëw seet suñu xam nga di leen wax match bi tey du yomb barke maam Serap Fall penc ñun ñoo ko mën suñu doomu lele mais ñun ñoo ko mën dañ koy dóor tey saa yu ma jàppee penc koy ajaat waa di ngeen wax yéen li lan la saa yu koy ajaat saa yu ma jàppee penc dama koy ajaat aj naa leen daaw jeeg ba daaw foowu leen nobali foo foowu leen ma lee eh, man la Ndeye Binta Sock di madame Sey dëkk ASC dëkkandoo ñun nag tey dañoo bëgg dëkkandoo ba ko waaye kenn rek moo ñu manqué muy Boubacar Boubacar Sankare ñu def ko hommage à Boubacar ku baax bëggoon dëkkandoo di supporteeru dëkkandoo amuñu fayam wóor na Serigne Touba koy ñaanal rek fam nekk yàlla na xëppee àjjana tey dañoo am lu ñu métti ndax Boubacar wóor na Serigne Touba Mbacke dañ koy ñaanal rek. fam nekk yàlla na xëppee àjjana ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal rek. maa ngi nuy waa Louga yëpp waa ñun moom ku na xam na dañoo mën bis barki Seydina Muhammad avec dëkkandoo rek noo tout est possible lañuy ñaan nag match bi waa penc dëkk na ngeen gore rek lu am ñu xam ne yàlla dogal li am. ñun ñëpp ñoo bokk Louga mënuñoo dem kenn mënta dem bàyyi sa morom waaye ñu ngi leen di ñaan rek laa leen wax ñu ngi leen di ñaan rek ñu jouer match bi ci fair play penc nag boo yaroo ma door la benn waaye boo fi call callee ma def la beneen waaw salaamaaleykum sëñ bi waaw maaleykum salaam tey nan nga gis match dëkkandoo penc bi waaw match dëkk diggante dëkkandoo penc match boobu du yomb parce que ñaari équipe yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay et puis ñoo bokk lépp waaye nag match la quoi match boo xam ne ñun ñoo ko gën a bëgg ñun waa Pique match la boo xam ne préparé nañ ko physiquement tactiquement si lépp préparé nañ pour ab yàlla may ñu ndam waaw. kon lan nga wax booy fair play lan nga si si booy waaw xam nga man euh, penc laa woon fubal euh, bari naa fi tamit dirigeant dëkkandoo yoo xam ne ñoo woon fubalandoo fubal nan ba bàyyi fubal mos na am benn problème mujj nu bi ñu bàyyee fubal danoo mujj sax di bal match dimanche ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xëy na booy yi dañoo xamul bari quoi waaye diggante dëkkandoo ak pénc jàmm rek moo war a dox si diggante bi ñoom ñaar parce que dirigeant yu njëkk yaak même yi yëpp ñoom ñaar yëpp benn la supporter dañoo war a xam ne ni si le meilleur gagne ñaar équipe yëpp benn la ku si yàlla may ndam ñoo xam may la ndam waaye yàlla na suñu borom suñu borom pénc yàlla may ko ndam jërëjëf la grand waaw salaamaaleykum sëñ waaw waaleykum salaam. sëñ bi man Penc laa dëkk. Penc nga sax xam ne Penc laa dëkk. waaw nan nga bi tey. ndam rek laa gis ndax pare nan ko nuñ ko war a pare waaj ko nuñ ko war a waaje def ci suñu matuwaay yëpp ndam rek kat des te yàlla nañu ko yàlla may di wax supporter nag fair play la quoi que parce que ndam li génnul Louga quoi match de poule la diggante dëkkandoog Penc lépp benn la ndam li génnul Louga nan ko def ci fair play non violence. te xam ne lépp Louga la rek waaw kontan naa trop merci beaucoup. maaleykum salaam. la foo dëkk. man penc laa dëkk. penc nga dëkk. waaw gis nañ sa taxawaay bari la bari wax la waaye non nan calmer rek ndax cool yi sa koñ bi la tombé. xam nga lépp di xeex di xuloo rus nañ ñaan fair play kii jël ki am ndam loolu rek moo jara ñaan quoi maa ngi ñaan waa dëkkandoo ñu jéegal ñu quoi ñu jéegal ñu xam nga rek ay xale lan àndal te football moo mel noonu football moo mel noonu football moo mel noonu te ñoo ngi jéggalu bu wér ñoo ngi jéggalu bu wér ok merci waaw ok ñoo far salaam a Baye gis nañ sa taxawaayu supporter yi waaw dañuy kii rek yaa ma gën a xam yàlla baax na daal waaw yàlla baax na lu ñëwagul kenn du ci commentaire quoi après match dinañ ci wax boo la rek dinañ ci wax quoi lan nga digal boy wa fair play fair play no violence. yaa am gën xam daal mbir mi lool la. amul leneen. day neex daal bañ neex ba Dakar du am violence barke señ Bamba. ci bir stade bi. non non xaw nak nag après nag. lu ngeen yëngalal tuuti ñu gis. waaw xaaral ma wax ak gars te ñëw bul dem. gaay ñu yëngal. ñun joy nan wet ñun joy nan wet kanu mi non fekk ndaa naan dem na ni ñun jooy nan wéet ñun jooy nan wéet kanu mi na fekk ndaanaan dem na ni ñun jooy nan wéet ñun jooy nan wéet kanu mi na fekk ndaanaan dem na ni sekangi ne sekangi ne kanu mi na fekk ndaanaan dem na ne leen joy barke Serigne Bamba te dul massa nopi du massa juk suñu xol muy sek ndanan dafa bëggon ASC bi don kenn ci ASC bi ñun tay mom la ñëwal mais pas penc barke Cheikh Ahmadou karam Mbacké Noreyni mo ngi ni mom la ñëwal mais pas penc di ko ñaanal nak yalla xaare ko aljana yi firdawsi duñ ko massa faté yalla may ñu ndam bu set wécc ci dara jey sayidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sallam nen yi du masa jeex nen yi du masa jeex boo ko ak reetaan bu neex bi ni la melone seddu xol billaahi baax bay bëgg loo dee loolu am bokkaat ay see pinc yàlla tey yàlla ko jël suñu loxo ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla xare àjjana si bàyyi sidina Muhammad may ñu ndam nag ndam loolu ñu delloo ko tuddee ko ko mu ciy gën a kontaan ndax lu mu bëggoon la billaahi et messieurs bonsoir euh, bienvenue au stade Albouri Ndiaye de Louga tey le derby bi nga xamante ni la ñëpp di xaar Louga ak euh, dëkkandoo qui joue euh, l'ASC Penc ci muy match boo xamante ni ñëpp ñu ngi koy xaar tey la ci stade euh, Albouri Ndiaye de Louga te bu ñu waxee dëkkandoo Penc wax kër Serigne Louga tey ñoom ñoo woote mbokk yi muy nag bis boo xamante ni bis bu mag la un match que tout Louga attendait tey la ku tëgg waa zone B on est aujourd'hui le 5 octobre 2017 ici au stade Albouri Ndiaye de Louga jamono yi 20 heures jotagul waaye 19 heures mi ngi waaj a jot ñi ngi ànd ak Dabax Pro Jamil Pro ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy le caméraman maison Dine Caméra caméraman di Ousmane mom lañu andal àndal fii ca Sadabou Ndiaye de Louga on rappelle que ni penc ak Dekendo bu daw bi on rappelle que ni Dekendo mom mo gagné penc par 2 buts à 1 le penc a le devoir de riposter ce soir le penc a le devoir de répliquer tay ci stade Albouri Ndiaye de Louga penc ak Dekendo ñom ñoy jouer tay mbokk yi c'est dans un instant sur Dabar Pro sur Jamil Pro Ousmane mom mo nek ci caméra bi.